seen showroom CAC bi ngeen doon xaar route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ça vous moo ñu resto So commencez c'est Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best. Au oh, Royal, Bourundori. Les pâtes Amira pour une cuisine royale. Taf rapido bi, Au garage, c'est la révolution de l'entretien automobile. Royal Horizon Baobab, fil free, home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. gisoo leen dañu war a delluwaat gaale bi. Eh, eh eh le monde part en couille wala lan da ngeen bëgg ñu delluwaat ci benn gaale bo xam dafa lakk ba paré loolu dafa mën a nekk et puis yow comment tu oses pour me faire des reproches yow nga xam ne yaa ñu indi ci li yépp c'est l'hôpital qui se moque de la clinique ou quoi là. yeen do leen wax ak kii kan moo ñu indi dans une maison hantée du yow ah en plus fi la tëdd dem ci guddi tëdd ba goudi gi di génn di gis sama takk ci kaw plafond bi muy wantanamera. waaw mais frère kan moo ñu présenté dëmm non Doudou calme-toi laisse-le faire son malin ouais nous bu ñu ci gàlle di xof cool grave. c'est à ton tour léegi gis nga di nga ñam. ñam Ben jour di ngeen ma jour ma Walking Dead di njaab di def mbak, pi bu neen naan hum. fekk nga dof dof na. ma dof na ma léegi situation bi loo ci xaar même solution la ci am C'est une dëggantaan sëriñ wuti Série quoi original là leen wax c'est ah. quoi ok Jean Ludo, tu ci biir gaale bi fait commerce au top salut Merci comment vous allez ça va bien je vous présente écoutez ça c'est le vrai série et nous on était des fake mère bi choc direct yooyu boobu amul sax débat dans le fou Série mara original la ñuy indi ci kër gi boo xam ne bu ñëwee dañ naan ko voilà dafa ñëw def ci stage aras la jógee xam nga def suñuy film comme d'habitude moo gën a jàng kuuna quoi. waaw dafa ñëw def ci stage ci sëriñ kuuna en même temps maire bi nekku fi mën nañ fi def lu ñuy def sans pour autant maire bi yëg ko ah loo koy wax. Eh. toi tu fais plus confiance à Coco Lay Lay. Coco Lay Lay ak ananas Lay Lay laa ci yamale. Doudou. déet say continue téye ko nga dugg ci berceau te dimbali ñu dimbali ñu mais qui? aram sam sam guli guli guli guli guli ram sam sam arafin arafin guli guli guli guli guli ram sam sam encore plus fort tu crois à Medine n'est-ce pas euh, ta gueule man lii su ma ko defoon damay fay j'ai un astuce une doudou fais un effort toi aussi avec doudou c'est toujours le contraire oui ma ba ngeen jàngoo leen xam

merde waay non non man ko non ma ngi ne man wax du coupé mukk ci courant ci bëri na wax kii na naan foore nii mel ni kuñ naan dencal fleur yi ah du nit walla xar du la ah. toj nag kumpentum toj ku saa naar xam dalaay pom lim def ci làmbi nag moom kenn xamul nu mu toll. xam dalaay banaan nag. ak mu anaan xam dalaay ananas ak ñëpp. ñoom ñoom ñoom fruits

passe ma sa kóol là ma xool légui maire bi fan la toll. Hmm. ah oui yo noo mu a xam maire bi fan la toll. master yoro localisation master la am. tu fais comment. les gars yëpp ay associé nañu bëgg né écoutez écoutez écoutez. radio de l'avenir légui nañu wax maire bi fan la toll. pare hmm daaru gën ci dikk bi de l'avenir bi bu ngeen jógee ndakaaru jëm AIBD tul sax fanweeri minute bu ngeen jógee AIBD jëm ci ndakaaru itam noonu la mel ndax li ko dalee tëggaloo jàpp si fi nga xamante ne moo di Patte waaye itam respecter surtout limitation de vitesse yi yoonu jàmm seen autoroute de l'avenir entendu non on a 45 minutes balaa maire bi di yegsi parfois nag da ngay am xam-xam sa sëriñ bi léegi mu ñëw yow parfois <laughs> maa ngi dem waxtaan ak sama jinne ko ko laay laay parce que le peuple en a besoin ko ko ma leen ay ram sam xanaa yi nekk si douche bi ngeen wax la jam, hmm. la jam. Hmm. bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. ni mel ni Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue.

Hmm. si am na lu may toog ah, hmm. hmm. wala nga dugg ci néeg da la defal sa néeg ba mu baax. arrangé ko lépp mais da ngay jéggee ba ñaata fekk lépp désordonné yëpp tas. lépp tas. Ah. te yamul foofu. léeg da ngay génn yam ci mur bi. nga gis nit ku toog. sol lu weex tàll. ñuul kukk. karaw bopp yi daanu ba ci ndigg li. mu téye bant du wax du def dara danaa cat taxaw rek. gis nañ loolu ñu fi. gis nañ ko ah, waaw gis nañ ko. boo man par contre dara jaaxaluma ci kër gi ah.

téeméeri junni la. téeméer téeméeri junni. sëriñ bi ñun koko laay laay miin nañ ko mun nañu defal remise benn réduction. Hein? koko laay laay mel na mi koko laay laay mel na mi ku ko indi ku ko fii kon noo ko woo kuy jëflanteeg moom. Hein? kuy jëflanteeg moom te yëguma ko. Hein? ku ko woo daa moo xam-xam bu ñëwee nga sànq. dama juum ku ko woo. Hmm? semaine bu ma ko fi defee ma sang leen aar kër gi. Hmm. Hmm. nangu nañ. 500000 yi nangu nañ merci merci Merci. Merci. de. Merci. Merci. merci.. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. que Merci. dafay Merci. Merci. Merci. ci Merci. ah Merci. Merci. Merci. Merci. am Merci. Merci. di am ay Merci. Merci. ko Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. vas-y da na ngeen def yéen a ngi toog bien am ngeen gan nag da ngeen ko dalal fexe leen bu fi gis dara lu ko naqari ok ko eh, eh, lay lay yow noo mun a invoqué ko lay lay te maîtriser woo ko yow dégg nga dégg sëriñ bi

di jigéen di xale di mhm. mag ñëpp am xam-xam mhm. lu ñu wax rek dëgg la lu ñu la wax de dem mboolem loo xamante ni nekk na téere ñoom dañ koo wàcce jeexal ko mais mais mais ku am xam-xam la li ma wax dëgg la xam nga dafa am xam bu ñuy jàng ak xam-xam bi ñuy mos mhm. seen dëkk ba ma fay jógee ñu ngi nekkoon ci xam-xam bu ñuy jàng maa ngi mos xam-xam sëñ bi daa am yoo xam ne dañooy jàng di jëli laa sol lii de xam-xam moom mooy mag di ndaw moom ñëpp rek man nañ ko am daa leen léeg-léeg nga gis gone koo xamante nii moo yëpp xam-xam foof magum jëm moy dox di dem ah <laughs> dëgg la xam nga xam nga li wax euh, boko xam nga xam-xamu ancienne la mais xam-xamu moderne moy nerf sensitif et nerf moteur li tax ni di tiit li tax ñak nit di ñak tiit je suis dans l'au-delà ku ñu solo ku ñu jàng bokkul Moussa ak Khoudar <laughs> <laughs> am na ku demoon ci mom dem defi di stage effectivement lepp lu gis dañ ko tëgg ko do ci nar moy nuuraani ak

moom moko ko ëpp xam-xam da eh, comprendre xam moom day def ci stage ci sëñ bi yii yëpp fi ñu doon ci stage bi la bul yëgg nak fi mu tëralee xalé bi rendiko hmm. bul yëgg tam fi ñuy les murs bi tabax ko bo bon fay sori Moi je suis dans l'alpha et l'oméga la création des tables des chaises hmm. qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde Qui du raf du tiit hmm. kenn du moom tënkoon a fal borom jinne yi xale bu loxom setee mën a bokk maga ki ndab sa tok fi mako bëgg mako sabab ndab bi nga bokk ak man je l'ai voulu ay moo lay sëñ bi ndekete xam-xam dëgg lépp loo mënta gis pousse la mag da koy for xalé da koy for quand je xalé ci mom la ko ci mom laa référé wu donc euh, science sans conscience n'est que ruine n'est que ruine de l'arme je vais transformer en arme je vais le buter <laughs> lii di science science mi téere da ko raw bu yàgg maanaam mboolem loo xam ne ni science mi ngi koy wax ci jamono ji hmm. fekk na téere waxoon ko bu yàgg yàgg yàgg avant ah, sax science di am hmm. Hmm? mange euh, lekkal xéwalul xéwalul mange mange xéwalul ah, ah. xam-xam yi bokkuñu